xam nga sax problème bi ni mu demee. Mhm. mais dañoo gis affaire boobaa ak léegi dafa yàgg. te mu nekk njabootu làmb bokk ci làmb. Mhm. te li ko dal nii mën naa dal ku ne mën naa dal euh, mbër mu nekk. Mhm. boo amoon kàddu ci sànni ak jàppale bi parce que boobaa ak léegi léegi moom mat at deux mois moo koy tee mu mat at boobaak léegi. lan ngay wax ñi nga xamante ñoo ŋànk làmb wala lan ngay wax ñi nga xamante ni nii ay defkatu lu baax lañ te nekk ci réew mi. président des en activité. wala des lutteurs simples comme le dit Gris Bordeaux euh, euh, damay interpréter Gris Bordeaux Gris Bordeaux foofu sa chantier la loolu am nga chantier yow maa ngi interpellé école ak écrit yëpp maa ngi interpellé cent pour cent yi nekk ci làmb yëpp maa ngi interpellé groupe WhatsApp yi nekk ci làmb yëpp di leen woo ñu def xala ñu def collecte de fonds pour jàppale booy Malika parce que Boy Malika c'est un lutteur en activité daaw daaw jég la mujjee bëre su ma su juumul ak càndum de ah suñu mbër la suñu booy la fii la dëkk càndum moo ko mujjee daan par décision arbitrale booy Malika boobu nattu moo ko dal da doon liggéey ñu agressé ko dóor ko bal bal bi dem na ba wér ci dem na ba yaramam wér ci kaw bal bi noonu kon maa ngi woo Gris Bordeaux ak lutteurs yi nekk Sénégal ak président écurie yi ak euh, jeune amateur ak amateur authentique maa ngi woo kuréel yi nekk ci làmb yépp ñu dajale ay fonds ñu jàppale booy marika mu dem opéré ji dindi bal bi nekk ci yaramam parce que bal gis nga euh, bal bi poison la Euh, fer la boo xam ne mu ngi ci biir yaramam. corps étranger la parce que moom diisaay bi lay topp di wàcc ndànk-ndànk te wàcc boobu muy wàcc est-ce que du dagg am lu muy dagg sax quoi man daal maa ngi woo Gris Bordeaux ak lutteurs yi ñu jàppale seen seen seen mbokk. parce que booy Malika wax dëgg yàlla boobu ba léegi euh, gisuñu ko mu wàcce boppam benn yoon mais dañ ko war a jàppale gis naa général Malika di def communication bu am solo. déglu woon naa ko man nag maa ngi woo suma mbokk président yi waa ARELS maa ngi leen woo pour ñu dajale benn fond dem jàppale booy Malika maa ngi woo kuréel yi nekk ci làmb yëpp ñu dajale seen xaalis 100 pour cent yi Pikine Géejawaay euh, Tëngéej maa ngi woo yi nekk ci Sénégal yëpp ñi nga xam ni làmb la ñuy dund ñu dajale fond bu dëgër comme nee nañ 6 millions moo ko war a faj ñu jàppale ñu di ci woo tamit suñu mbokk artistes yi di ci woo footballeurs yi di woo sportif yëpp di leen woo ñu dajale jàppale booy Malika pour mu dem opérer dindi bal boobu nekk ci yaramam parce que c'est un sportif c'est un jeune la ba pare soutien de famille la man mosuma ko gis à part signature contrat am fii ak dem stade seetaan ko du ñu déggante xaw ma ko xam nga mais daal à travers ma voix maa ngi woo milieu lamb lépp ñu ñëw jàppale ko Gris Bordeaux nag euh, kontaan nañ ci moom fan yii yëpp kontaan nañ ci mbër yëpp ci ak ci acte yi ñuy def di woote pour ñu ubbiwaat làmb ji di woote pour ñu jàppale làmb mais kii nag seen mbokku mbër la. Gris Bordeaux monsieur le président Gris Bordeaux maa lay woo pour nga waxtaan ak sa mbokku mbër yi Balla Gaye 2 la Lion de Guédiawaye Modou Lo roi des arènes Boy Niang Gouye Gui Eumeu Sène Ama Baldé Eumeu Sène junior Mbaye Tine Bou Siteu Safara di woo caatu rëbës double moteur nga woo sa mbokk mbër yëpp. ku ci nekk ah joxe mille francs bu ñu ko calculer da ngeen di romb da ngeen di am sax da ngeen di romb li li war a faj booy malik di woo président Malick ñu ngi président de de présidents d'école ay écrit mu def de même noonu diwoo woo ñeneen ñu def noonu waaw.